ci waawoon ma woote kon nag wuy ji leen ku jóg wuy ji maam aas am say ngërëm yow mi jullit ñu ngi lay ñaan nga daal di abonné ci chaîne bii di Tivaouane 24 TV di partager di like vidéo yi di commentaire ngir ngay jot ci lépp lu am solo lu fi bàyyi koo jërë ngeen jëf min ash-shaytaan ar-rajiim bismillahi ar-rahmaani ar-rahiim ثم الصلاة والسلام دائمين متلازمين على سر الوجود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم mbokki jullit ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu xaq di leen nuyu nuyu bi gën ci nuyu muy asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bu ko defee tey ñu ngi ñëw ak yéen ci waxtaanee benn góor yàlla muy sëriñ Babacar Sy xam naa waxtaan ci moom du nekk lu yomb waaye nag liñ naan dañ siy wax li nga xamante ne rek moom moom mooy suñu ta'wil ci moom mënuñu ko mënuñu wax léppam ci moom waaye dañuy ta'wil leen na rek ci moom ndax buñ ko jéemee waxtaanee duñ fi jóge ndax li mu réaliser si dund kon nag tey góor googu lañu war a waxtaanee muy Serigne Babacar Sy moom nag damay faral di wax ne boo ko bëggee xam rek laaj ko mam Cheikh Ahmed Tidiane si maktoum sama turando ndax jangal nañu kan moy serigne Babacar si wax nañu fan la juddoo wax nañu wilaayam wax nañu xam-xamam bayiwul dara motax nak ba muy wax sa xasidaam ba di wax fi nga xamante ni kat fa la serigne Babacar si ganee aduna wax ñu ñoy ay way lan mo nek ay jikkoom waaye xasida boobu lan la ci wax mu nekk alim ma ala xayril jazirati innaha raat qablu xutbal yowm fi mahdihi tifla mu ne raat fi abi bakirin sabiyan man naan fa lamma xawa ashran raat tiflahu shibla nee na sëriñ Babacar si booy laaj fan la gënee àdduna nee na mu ngi gënee àdduna fi nga xamante ne moom moo gën si jazira yi jazira boo ko déggee mooy île nee na la ndar gi nga xamante ne fa la gën a see àdduna île bi nga xamante ne moom moo gën ci île moo nekk foofu noonu fofu xamanteni mom moom ndak fi mu limu bëgg jàngalé fofu nonu ci li nga xamanteni ni kat moom moy ci way moy serigne Babacar si fi nga xamanteni ni fa la gënee aduna moy ndar motax mu raat qablu qutbal yawm fii mahdihi tifla nee ki nga xamanteni euh, dëkk bi nga xamanteni mo ñëk gis ndaw ko serigne Babacar si moy ndar motax mu raat qablu qutbal yawm fii mahdi tifla ndax moom jamono bi nga xamanteni moy mom moom moo fi nga xamanteni mom moom fi fii Sénégal mo nekkoon mo fi nekkon ki nga xamantene mom moy mooy bi waye tamit nak mo nekkon khalifatullah fil ard lu jara baye xel khalifatul am ak xalifatullah fi ard ben khalifatul am boko waxe bone tiawa di nga tuddu kilifa bone fi nga xamantene mom moy yof di nga tuddu kilifa bone ne di nga tuddu kilifa bone ne bone boo ne faneen di nga tuddu kilifa waye xalifatullah fi l ard ken lay nek te jamono mo nékkon ki nga xamanténi moy khalifatullah xalifatullah fi ardi ndax li nga xamanténi mo wara mengo ci nit mu mëna a nekk ki nga xamanténi mom moy téwal suñu borom subhanahu wa taala fi ci fi nga xamanténi ni mom moy ci jamono mom moko nékkon ndax nak suñu borom subhanahu wa taala bu muy wax ak adam nan inni ja'al fi ardi khalifa majhul lako def waaw majhul la ko def inni ja'ilun fil ardi khalifa waye bo mu ci nama ma yonti yàlla adam motax jamono bi nga xamanteni mom moom la nekkoon xalifatullah fil ard mom mi nga xam mooy sëñ Babacar Si ñu ñëw joxagn ne ki la ndax majhul la ko suñu borom subhanahu wa taala def moy ken xamu kon nak koku lañ bëgg a koku kooku mom du yomb motax mam Cheikh neena ra'at fi abi bakr sabiyan mu neena gi nga serigne baba kersi mom dafa nekkoon ndaw bo xamanteni ni kat bu tere wala li nga xamanteni ne ko suñu borom subhanahu wa taala tere xam nga suñu borom man na la tere waye nga def la la neex waye mom dafa dafa daf ci tek moy lan tere li nga xam li nga xamanteni suñu borom tere nag ko bàyyi nako ba pare tere li nga xamanteni ni moy lépp lo xamanteni lu bon la wala lépp lo am lu ñu cible mu tere ka bopam moo tax nag nekkoon na sabiyan mu mën naan ndax da arab day wax am benn wax bu muy wax sabiyan sabiyan walaw kaana nabiyan waaye loolu sëñ Babacar Si nangu ah gone nga gone nga daal donte sax yonent nga waaye déedéet sëriñ Babacar Si nee na déedéet ndax moom nee na man sëriñ Babacar Si nee na man añ laa bëccëg laa sotti nee na man masumaa mooy sama borom masumaa mooy sama morom te lu ma waaye xamal na ko wax kon lool ku ko ñemeñ a wax ah ken du yow ndax mam ci Ahmed Tidiane si nee na ba ko sëñ Babacar si waxee dafa tok tim ko di xool ruuxam muy dem xa ñëw muy xol diko xol diko xol diko xol waye bimu kay xol mu ne li ni ku ko waxon ku dul ki nga xamanteni mom moy Serigne babakar Sy mi nga xamanteni ni mom mo moo Cheikh doonu kep ko xamanteni ni kat mom moy nitu yàlla ci kaw suuf kon yaa suñu borom subhanahu wa taala dana jël sa bakkan ndax lii suñu borom du ko toléré maam Cheikh nee na ba mu ko waxee dafa toog di ko suivre ba jant so kon nag nga xam ne ki nga xamante ne moom mooy Serigne Babacar Sy kenn du moom kon nekkoon na sabiyan mu mën am nekkul ndaw ji nga xamante ne ni kat nee na man gone laa mooy li borom laxdar yu di wax damay xaar mooy yàlla dindi ma ku ne la di nekk mag ku ne la di nga nekk mag te léegi ndaw gi dafa gaaw de ñun léegi suñu tànk yi baaxatul te ay yu ndaw lañ kon nga xam ne kon léegi màgge gi gaaw na moo tax zahaba shababu fama lahu min awdatin wa atal mashiyu fa ayna minhu lmahrab yow nga nekk ndaw naan man damay xaar nekk mag yow ku ne la di nga nekk mag te yow fi mu toll nii at yi gaaw na gaaw boo xamante ne nga nekk mag dafa yomb léegi ngay toog jaamoo suñu borom ba li nga xamante ne mooy sa ndaw dem léegi ngay xalaat naan sama ndaw mënta ñëwaat dafa mustaxil mënta ñëwaat ndaw bu xisee ba rombal du ñëwaat te suñu borom di ma ay faral di waxee soxlawul mag bi nga xamante dafa màgget ba xob bi daas di ko jaamu waaye ki mu soxla mooy ndaw bi nga xamante ne ni kat àdduna soxla na ko waaye tamit moom suñu borom subhana taala soxla na ko léegi ñu koy xëccoo suñu borom kooku la soxla waaye soxlawul ki nga xamante ne màgget na xamatul fan la jëm mu ne kat benn yoon laa fi am dem jàkk ja suñu borom nee na ki nga xamante ne moom moo ko ëppal solo mooy ndaw bi nga xamante ne nii sa euh, seytaane da da koy woo kon nag bul ne man ndaw laa damay bàyyi ba nekk mag déedéet kon nag lu jër bàyyi xel la waaw kon nag li arab di wax Sëriñ Babacar Si daanu ko dundee dafa tere woon lépp loo xamante ne lu ñu sib la wala lépp loo xamante ne lu bon la boppam moo tax nag bu fekkee dangaa nekk ndaw. xam na yaa ngi ci yoon boo xamante ne du bu baax bi dellul gannaaw ndax bu ñu sëriñ Babacar Si nga fitasu bu ñu sëriñ Babacar Si nga joxe sa xaalis te bu fekkee yow sëriñ Babacar Si la mu daan digle ci lu baax sëriñ Babacar Si jikko yu mu làmboon yow nekkul ci yow kon li ngay woote nekkul ci yow kon lii wane ne mu ngi ci yow mooy lan muy lépp loo xamante ni sëriñ Babacar Si yow nga ne sopp nga sëriñ Babacar Si buñ ko waxee nga tasu fexeel ba jikko yi mu xamante ne ni moom la moom la làmboon nga jéem cee am yenn kon nag bu fekkee yaa ngi daan def loo xamante ne ni kat du yoon tuubu ilallahi tawbatan nasuha fexeel nga xam ne kat naa dellu suñu borom ndax nag maa ngi naan ma nit yàlla yi laa sopp ku mel ni Serigne Babacar Sy kon nag ku mel noonu bu fekkee da ngay woote ne kaa sopp na nga bàyyi li nga xamante ni moom nga doon def ci loo xamante ne ni du lu baax ndax moom bañoon na ko waaw sax bi yéen bu mën naa waaw loolu leer na moo tax mu ne. falamma hawa ashran ra'at tiflahu shibla nee na Serigne Babacar Sy gis nga ba mu amee dix ans la nekk gaynde gu ndaw waaw gaynde gu ndaw nee na dix ans laa la wax waxuma la ay at yu bëri la dix ans dix ans nga nekk ko ndaw nekk gaynde gu ndaw waaw kon nag nga xam ne Serigne Babacar Sy kenn nekkuloon moom waaye ba tey mu teg si li nga xamante ne nii kat moom mooy buy ba muy waxee ne ban euh, si ñaata at la amoon bi muy nekk li nga xamante ne moom mooy wàlli suñu borom subhanahu wa taala am na ay wax yu ci mën a jub nag ndax nee na la wa in adrakat ishrin fa huwa waliyuha sarairuha tabni lahu alqawla wal fi'la nee na Serigne Babacar Sy bi mu amee vingt ans la nekk waliyu suñu borom subhanahu wa taala te am loo xamante ne dañ ko daan gis wala loo xamante ne moom mu ëpp ci yeneen yi mooy kalaa balaa ngay jot sa li nga xamante ne mooy sa nubuwa di nga am 40 wala balaa ngay nekk waliwullah di nga am 40 ans waaye foofu dafa am sew-sew bu ci nekk ndax bu ñu ne ki nga xamante ne ni kat moom mooy insa jot na nubuwa njëkk muy am 20 njëkk muy am 40 ans ki nga xamante ne mooy yaxyaa tamit am jot na li nga xamante ne mooy nubuwa njëkk muy am 40 waaye ba tey tamit booy si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam donte nee nañ suñu borom subhanahu bi mu koy yónni am na 40 waaye dafa am sew sew bu ci nekk mooy ñaat la ñuy juwaale mooy lan mooy fii fii li nga xamante ne moom la nubuwa gi feeñee ak mu tàmbale bu ñu ne ci 40 yi fa la nubuwa feeñee waaye buñ ne ki nga xamante ne fa li nga xamante ne moom mooy nubuwa bi commencé nee na foofu noonu Cheikh Seydil Hadji Malick nee na wa alama allahu hadina nubuwatahu wa kaana aadabu bayna nafsi wa nasam nee na la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba nga xamante ni fa la aadama nekkee ci ban ba ak ndox ba nee na fa la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la li nga xamante ne moom mooy nuwoom commencé waaw waaye nag si la feeñee ndax nag suñu maam aadam ba suñu maam euh, ba suñu borom subhanahu wa dindee ci moom ki nga xamante ne mooy suñu maam Hawa waaw mu gis ko ndara daw dem ci moom mu nekk eh am na lu des donte yi nga xamante ne ñoom ñoo war a judd ñëpp si yéen lañu war a jóge waaye am na lu des mu dara daw dem ci moom mu nekk am na lu des ñu ne ko lan la mu ne ko cang li cang li la mu ne ko muhammad rasulullah kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jot na li nga xamante ne ni moom mooy nu woo njëkk ki nga xamante ne moom mooy aadama di sosu kon foofu lu jar a xel la kon nag ki nga xamante ne moom mooy sëriñ kër Si kon li nga xamante ne moom mooy mooy euh, waliyullah bi mu koy nekk mu ngi am vingt ans yeggul ci quarante ba ci nga xamante ne moom la doon muy Cheikh Ahmed Tidiane Serif bi muy bi muy am li nga xamante ni moom mooy bi muy nekk laax tamit boobu aadam mu ngi ci li nga xamante ne mooy sa ndox ma ak mi nga xamante ne mooy mooy ban ndax maam Cheikh moom moo ko maam Cheikh Serif moom moo ko wax kon nag moom tamit nekk naa li nga xamante ne moom mooy la njëkk ñuy bind ki nga xamante ne moom mooy aadama kon nag li ñu mën a déggee foofu mooy du ñu tënk ne seeni nubuwa wala wilaaya ñu ngi koy am ci lan ci 40 ans déedéet kon am na ñoo xamante ne am nañ ko ci at yoo xamante ne moom moo gën a néew loolu moo tax nag moo tax nee na lool noonu ay secret yooyu noonu secret yu nekk Serigne Babacar Sy moo tax mu ne loolu noonu moo tax lu mu wax mu tabaxu lu mu jëf mu tabaxu sëriñ Babacar si lu mu wax rek tabaxu lu mu jëf tabaxu waaw ndax xel mi nga xamante ne moom moo nekkoon ci moom waaye ba tey mu ne jaziratu xaalatin xisaanin wa innaha lahunna sada min salihatin biha tutla nee na boo demee foofu sa Ndar nee na la ilu ay tànt la mooy ay tànt yoo xamante ne nii kat ña nga fa waaw tànt buñ ko waxee mooy ñi nga xamante ni kat ñoo bokkee sa li nga xamante ne moom mooy sa euh, wayjur bu jigéen ñooñu say tànt lañ sa rakku yaay la wala sa magu yaay la bu jigéen sa tànt la nee na boo demee sa Ndar nag di nga fa fekk li nga xamante ne mooy ay tànt yoo xamante ne nii di kat yu sell lañ waaw waaye tamit ba tey mu ne li nga xamante ne moom la ci teg mooy ki nga xamante ne kat moom mooy sëriñ Babacar si ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko jur dëkk foofu sa ndar mu ne karaimu an jabnal kirama fa kullu man atahunna laaqa fihi zarahunna ma awla nee na boo demee foofu noonu xamante ne sa ndar nee na di nga xam ñi nga xamante ne ni kat ñoom ñoo jur sëriñ Babacar si ñoom ñoo ko meñ nee na nag ay ñu tedd ñoo mën a jur ñu tedd waaw wal baladu tayyib yaxruju nabaatuhu bi ismi rabbi kon ku tedd moo mën a jur ku tedd ndax gis nga sëriñ Babacar si jar jar soon pour man kan mooy waay juróom bu ñu ne Cheikh Seydil Hadji Malick kan mooy waay juróom bu jigéen ñu ne maam Roqaye Ndiaye kon kooku noonu liñ naan effort lay def rek dem effort ndax kan mooy kan mooy euh, Cheikh Seydil Hadji Malick waaye damay dellu sama turandoo ndax nag nee na nag ki nga xamante ne moom mooy Cheikh Seydil Hadji Malick nee na moom mooy ki nga xamante ne ni am na ñaari pouvoir سلطان الجلال السلطان العجل موتاخ مو نيك ارا مالكا في سلطه من جلاله ومن عجزه حتى استقرت بحاله ولكنه يستعمل العقل دونها وهل عرف الاقوام ما في جلاله مودم با تي بير نيكان تصرف مولانا الامام كما يرى بمستويات خاله رمض حاله واي مودم با تي بير نيكان وللجسم من كل الغذاء طيباته ويجهل ما رزق دون حلاله موتاخ بذاك حما فرضا وصان مواتنا وأبعد كل منهما عن ضلاله موتح من ها هو جدي قام بالحق بعده أبي وأبي أولى بكل حصاله فوالله أسياء الأخوة كلها دنج موتح من كيغا خامتاني ني موم موي شيخ سيد الحاج مالك نينا موم موي كان موي كيغا خامتاني كات امنا نياري بوفوار نياري بوفوار بن بي موي بان سلطان الجلال سلطان الجلال موي لا nee na sultaanul jalaal mooy dugg suñu borom subhaanahu wa taala ba mu wàlla li nga xamante ne moom mooy màggaayam ndax al jalaal mooy màggaay suñu borom subhaanahu wa taala léegi mu ne suñu borom nga dugg ko nekkax moom ba mu wàlla li nga xamante ne moom mooy màggaayam ba bu la gaynde gisee sax di la daw kon loolu mooy sultaanul jalaal bi ci des moom mooy ban sultaanul ajz nee na moom mooy lan nee na mooy di ragal suñu borom subhaanahu wa taala di ko ragal ba ragal gi nga koy ragal ba mu da nga koy ragal ci muus bi nga xamante ne ni kat ndaw na ndaw goo xamante ne ni kat yow wóor na la mënul la dara waaye boo gisee di ko daw comme ni ngay dawee gaynde xoolal ma loolu di ragal suñu borom subhaanahu wa taala ba boo gisee muus sax di ko daw comme ni ngay dawee gaynde kon xoolal ma loolu noonu ñaari pouvoir yooyu ku ko yor surtout bi nga xamante ne moom moo mujj muy ragal suñu borom subhanahu wa taala ndax mooy lépp ndax maam Cheikh nee na ragal suñu borom mooy lan mooy bàyyi xel suñu borom neex na dégg foofu amul wuute ñaari benn la ndax ragal suñu borom mooy bàyyi suñu borom ndax toog nga foo xamante ne nii wóor na ne la man ngaa mooy suñu borom nga fàttale ko suñu borom nga bàyyi ko ndax lan xam nga ne kat suñu borom subhanahu wa fu ma nekk maa ngi ak moom kon dama kaa war a ragal fu ma manti nekk moo tax nabi sallallahu alayhi wa sallam ne ittaqullah haysu ma kunta ragalal suñu borom foo manti nekk ragalal suñu borom foo manti nekk waaw ne man bu ma bu ma gisee sama wayjur laa koy ragal bu ma gisee suma sëriñ laa koy ragal kon ragaloo suñu borom ndax bàyyi woo ko xel ndax boo ko doon bàyyi xel foo nekk di nga ko di ko fàttaliku ko kon xoolal ma Seex Seydil Haaji Maalik ñaari jikko yi mu am waaye bi ci des nee na ki nga xamante ni moom mooy Seex Seydil Haaji Malick nee na tasarufu mawlaana imaam kama yor nee na gis nga boo demee sëñ sëñ Babacar si si maam Seex Seydil Haaji Malick nee na ay tasarufam gi nga tasaruf si lañ jëlee baat bi nga xamante mooy al masraf bii firi banque banque bi ngay dem mu am fa lan li nga xamante nii kat moom mooy wurus mu nga fa wurus mu ngi fa xaalis mu ngi fa waaw léegi li nga xamante ni moom mooy wurus bi moom mooy garanti xaalis bi waaye boo xoolee xaalis bi nga xamante ne ni kat moom nga la ñuy weccee foofu noonu nga mën a jël xaalis bi jénn nga mën a jël xaalis bi si banque bi jénn dem 10 000 francs ba nga xamante ne moom nga fa jëlee nga mën see jënd sa saa li nga xamante ne ni moom mooy sa diwlin jënd si sa ceeb ñu wecc la waaw ñu peeseel la ay kiloy ceeb jaay la diwlin nga dem togg sa añ يوكي لا تصرف ماي لونو خالد سوبيك دي سوبيك جوجي تي للي ديم تي للي جوجي تي دي ديم تي للي نينا كليفا ولا نيت يال نون لاي مين داي ام اي تصرف ليغي تصرف يوي نونو نينا فال روح نور ما وللنفس عزه وللقلب حب في سنه من جماله نينا بو ديمي سيد الحاج مالك نينا بو ديمي تي روحام leer kasse nga fay fek bo demé ci bakéna izza nga fay fek moy tedda waaye waye timit néna li nga xamantene mom moy jëm néna bo démé do fa fek luddul li nga xamantene ni kat mom moy lekkawu dagan lu lu ñëw rek mu dundé ko mo tax ma ne fa li ruuxi nurun ma wali nafsi izatun waye walil qalbi hubun fi sanamin jamalihi bo démé ci xolam tamit yang fay fek sopp suñu borom subhanahu wa taala kon nag kooku mooy Cheikh Seydi El Hadji Malick kooku moo jur ki nga xamante ne ni moom mooy Serigne Babacar Sy waaye li mu ci teg moo ñu ëppal solo wa haa huwa jaddi qaama bil xaqi baadahu abi wa abi awla bi kulli xisaalihi nee na li mu la wax si Maodo nee na du lekk lu dul li nga xamante ne moom mooy lu dagan boo demee ci xolam leer rek nga fay fekk ndax ñaar yi moom moo am mooy lan jëmm ak ruux lii dundal jëmm mooy lan lekk ak naan lii dundal ruux mooy leer te boo demee ci Maodo leer kese moo nekk ci ruuxam léegi mu ne la kooku noonu li ma wax ci moom noonu yépp du lekk lu dul ndax nag maam Cheikh nee na bu fekkul woon du ki nga xamante ne ni kat moom mooy suñu borom subhanahu wa yàlla gi nga xamante ne moom moom la nekk yow man ngaa sañ wala bu fekkoon li nga xamante ne ni kat moom mooy li nekk ci ki nga xamante ne moom mooy nit ndax suñu borom moom yëpp xam nañ ne amul fu ko nit di toll ndax la sharika lahu amul kenn kuñ koy tëkkaale mais yenn say nitu yàlla am fu mu toll doo xam lii lan la waaye li nga xamante ne moo am solo rek mooy ki doon sëriñ ki ki sëydal Hadji malik Sy nee na la lépp li nga xamante ni moom la Seydi Hadji Malick doon def ki nga xamante ne moom moo ko continuer wala ki nga gën doxal ci dëgg mooy sëriñ Babacar Sy mu ne wa haa huwa jaddi qaama bil haqqi ba'dahu abi wa abi awla bi kulli xisaalihi fi ñuy tëjee mooy lan nee na la ki nga xamante ne moom mooy sëriñ Babacar Sy nee na la ki nga xamante ne moom mooy Serigne Babacar Sy du question ne Cheikh Seydi El Hadji Malick dafa dafa jël sëriñ Babacar Sy jox ko li nga xamante ne ni moom mooy nono gi déedéet du fii duratul bay daal nee na fa lañ ko falee nee na fa lañ toog waxtaan ñu ne toog ne kat ki nga xamante ni moom lañ mën a jox li nga xamante ni kat moom mooy tariqa bi ki nga xamante ne moo war a méngale lépp mooy Serigne Babacar Sy ndax nag boo xoolee ba ñu toogee ki nga xamante ne moom moo ko moom moom moom moo ñëw man am naa koo xamante ni kat moom laa proposé muy maam Cheikh maam Cheikh Omar maam Omar moo ne man kat fi mu toll nii kat ki ma bëgg ñu def ko ki nga xam li nga xamante ne ni moom mooy xutbu Cheikh mooy kan mooy Serigne Babacar waye bañu xolé xoolee sallallahu alayhi wa sallam ñoom ki nga xamantene moy soxna Fatima ki nga xamantene moy mooy husayn Muhammadin Ghali mam mam maam maam Alfahima Yorowele mam Cheikh Omar ki nga xamantene mom moy cheikh sayyid al haji malik ñom ñep ñu toog mam Cheikh Omar ne man dal ki la ki la ki la posé pour mu def li nga pour mu don li nga xamantene moy moy mooy Cheikh. ñu ne ah na andi ay dossier ñu xool ñu xool la mu waxoon dellu si mooy mankat añ laa bëccëg laa sotti mosuma mooy sama borom mu set wicc ñu nekkoon kii ay mbir mi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam signé sur 20 ki nga xamante ne moom mooy Fatima euh, signé 20 sur ki nga xamante ne nii kat moom mooy Hassan Ousseynou ñu signé 20 sur 20 ki nga xamante ne mooy Mouhamadou Ghali signé 20 sur 20 maam Cheikh Cheikh Ahmed Tidiane euh, Serif signé 20 sur 20 Mam Cheikh Omar signé 20 sur 20 ki Alpha Himayoro Wele fu signé 20 sur 20 mu ñëw sëriñ ba si ki nga xamante ne moom mooy Cheikh Seydil Hadji Malick mu ne kon yendi bi sallallahu alayhi wa sallam signé 20 sur 20 sàkk doon man mi nga xamante ne man maa juri si ki nga xamante ne mooy Babou Babacar Sy moo mu signé 20 sur 20 moo tax mu ne ko fa wallahu asiyal uxuwati kullaha ndax nag dañ koo jox li nga xamante ne ni moom mooy mbiru mbokk gi li nga xamante ne moom mooy mbiru tariqa bi yépp sëriñ Babacar Sy lañ ko jox ndax nag moom moom moo leen doon waataahu miftahan qubayla intiqaalihi nee na jox na ko li nga xamante ni moom mooy tariqa seex jëkk mu fi jóge kon nag moo tax mu ne waqal lahu ijtamaat lahul wasaaya tijaani wa rasuli wa alihi moom moo dajale li nga xamante ni moom mooy wasaaya yonti bi sallallahu alayhi wasallam ba ki nga xamante ne moy Cheikh sayyid Hadji Malik kon nag moo tax mu ne ko ba tey suñu borom subhanahu wa taala sax yow ya ko doy si li nga xamante ne mooy Cheikh sayyid Hadji Malik. kon nag ki nga xamante ne moy Serigne Babacar Sy waxtane ko du yom dañ ci ciosse rek ndax nag mënuñu ko waxtane ci benn bes bañ koy waxtane ci ay minute kon ki nga xamante ne moy Serigne Babacar si mu ngi non turam rek wane na ko kon nag moy abuna aboubacrine وإن كان في القبر رضينا به شيخا إلى آخر الدهر لمن أنتمي إن لم يكن لجنابه بمن أقتدي إن لم يكن بأبي بكر مرح منك خلالق جو القلب يا طير حبه فبذي بخير الوصف عقال الطير لطيف بنا في النفس والروح ذكره وألتف منه فيه ما الذكر يزيد علينا أخزة وهو غائب فأكرم به من غائب وهو في الهجر بيت بوب لجي تجي يزيد يزيد علينا أخزة وهو غائب فأكرم به من غائب وهو في الهجر ne loolu bi mu koy wax ma ki nga xamante ne moom mooy sëriñ Pape Malick moo si gënoon nekk ndaw ndara saaj mu ne ko kat ki nga xamante ne moom mooy sëriñ Babacar si mu ngi fi demoon ndax bu ñu ñëwee si saal ko ndax nag bu fekkoon da koo wax amul sëñ sëriñ Pape Malick si du gëmati maam waaye na mu ko waxee noonu la amee ndax ki ñu ki ñu suur ci bàmmeel ñëw fekk ko muy toog di teral jaam ñi di dindi jaam ñi boo ko ñëwee tey fekk ko muy teral jaam ñi boo ko ñëwee gën a gannaaw suba nga fekk ko muy dindi jaam ñi kooku mooy sëriñ Babacar si moo tax mu ne ko wa fi xaalatin yahdi wa fi xaalatin yaqri kon wa ma zalika an lahi bi aziz ñu ngi nuyu di ziara mbokki ñi ñu doon seetaan ñëpp di si jiital ki nga xamante ne ni kat moom mooy sama kilifa ki nga xamante ne aw ma kudul moom muy cheikh mouhamadul moustapha si di ko ñaan yàlla yàlla gën ko sàmm yàlla gën ko aar yàlla ak fa loxo yaakat yeggul di ko ñaanal kilifa diine yëpp kilifa aada yëpp di wax wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu